mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen euh, gërëm bu baax euh, di am mbégte nag teewaat bi ci ndimbalu sunu borom ak kàttanam di leen jaajëfal bu baax di nuyu El Hadji Modou Diouf euh, ci 30 minutes chrono ci solution info yi di leen ñaan ngeen di gën a abonné mais aussi ngeen di gën di aimer di partage mais aussi di jàpp ci combat bi waaw di leen gërëm bu baax nag di gërëm El Hadji Modou Sandiogu assan ay Aïcha maa jigéen euh, topp Ablaye ak ñépp ñu nekk ci groupe solution di leen baalu àq nag di ñaan ngeen baal ñu di ñaan ngeen baal ñu ndaxte wax yombul waaye lu def waxu lu ay di jàmbat te nekk li may faral di waxam mooy di def ba noppi na kenn du ko wax amul fenn kon moo tax tey ji ñu fas yéene waxtaanee réew mi nag di waxtaanee réew mi ci contexte bu difficile contexte bu yombul pourquoi ma ni yombul ndaxte wax ji mën na bari cooli mën na bari mais fi réew mi toll ñaar rek pour man ñoo xam li xew mooy Ousmane Sonko ak président Macky Sall lu tax ma ni Ousmane Sonko ak président Macky Sall ñoo xam li xew. Macky Sall ginnaaw ay at mi wërloo ak ñun ci ni dina nekk candidat wala du ko nekk ni wii ni non ñu dem ba altine la 3 mu war a wax di dimanche Ousmane Sonko njëkkantu ko wax ak askan wi wax leen ni lii la Macky Sall war a ibbil ñu ay hypothèse mooy bu nee day nekk candidat lii mooy xew waaye bu nekkul candidat lii mooy xew mu mel ne Ousmane Sonko xamoon na lu xew parce que mi ngi naan ay nitam am na ñu ne ma xaaral ba Macky wax ba noppi waaye bu ma xaaree ba mu wax ba noppi du baax baal ma wax léegi li mu waxoon nag bokk na ci mooy Macky mën na ne du présenté wu ngir dem élection présidentielle atum 2024 loolu Ousmane ko waxoon suñu borom firndeel ko mooy Macky nee na du bokk Macky tamit mi ne du bokk moom tamit xamoon na ni du bokk pourtant bari na ci réew mi ñu bari ñu gëmoon ni Macky day bokk ndaxte akti yi muy teg ak ni muy jëflanteeg askan wi ak ay nitam euh, investiture ak maire ya mu dalaloon élus locaux yooyu ñu bari jàppoon day bokk kon gëm naa ni yi mu ne du bokk ak usmaan Sonko mi jàppoon ne du bokk ñoom ñaar xamoon na li xew mais bu dul pour man ñoom ñaar xam li xew moo tax réew mi naqadee analyser lu tax Ousmane Sonko xamoon loolu lu tax makki sàll xam lu mu waxul woon kenn ba du bokk léegi nag laaj bi egg ci mooy Macky nee na du dem waaye am ñu ñu ne duma dem te Sonko du dem te wala fi naan duma dem te doo dem looloo tax rang bi mënul bouger léegi nag cooli foofu la ne parce que man ñàkk bokk Macky Sall lu ma jàpp la lu normal la lu normal la benn mooy yoon dafa ne kenn mënut a teg la ñaari mandat yu toftaloo te comme am na ñaari mandat mënu ci teg ñetteel man loolu laa mës a ci àddina leneen lu mu defoon lu dul lii jaay doole la wala mu jalgati jëm ci wàllu yoon loolu laa gëmoon beneen bi ci topp mooy wolof njaay dafa ne lu waaye di bañ ku la ëpp doole dala kaa tegul lu tax ma ne lu waay di bañ ku la ëpp doole dala kaa tegul mooy dafa am un phénomène bu ñëw boo xam ne ñii dañ naan duñ tudd turam ñii ne duñ wax waxam ñii ne bu dun ko tudd du ko jéem a sewal di ko tuutal booy tuutal da ngay tuutal ku tuuti booy sewal da ngay sewal ku sew booy toroxal da ngay toroxal ku yàlla toroxal Ousmane Sonko ci politique senegal xorom la ci. boo ko ci deful ñamo du neex boo ko ci defee mën ko lekk bu la neexee nag nga ni warte ëpp ndaxte bu ëppee mën na yàq ñam wi mais politique gu bi xorom la ci kenn mën ko cee génnee bi ma ki waxee tey ji nag jàngat bi ngay def mooy ñiy wax yépp dañuy bëgg écarter Ousmane Sonko isole ko comme si waa ji moom warul bokk même bu Macky bokkul waa ji warul bokk parce que yoon tegu na ci kawam bu dee mbiri Mame Mbaye ba léegi mi ngi ci loxoy yoon te lay yoon di mujj di dogal ci mbiri Mame ñaa kenn xam nga ba léegi mi ngi ci loxoy yoon acte bi définitiful mbiri Adji Sarr bi ñu naan ay corruption de la jeunesse ak yooyu ba tey ji ñi ngi topp yoon wi parce que da ko jugé par contumace contumace boobu am na ñu ko dingat gis ni nan ko defee du noonu ak nan ko doxalee du noonu parce que mënoo jugé nit ki par contumace xam fi mu ne nga mën ko dem jëli jëliwoo ko barricade këram tëj ko fa ba pare di ko juger par contumace yooyu yëpp njaw dafa desandi xammin ci mbiru Ousmane Sonko loolu tax Ousmane Sonko képp ko foog ne rey nga ko rendi ko suul ko yaa ngi nax sa bopp Ousmane Sonko mu ngi fi ba léegi sañ-sañ bi ñëpp am la am parce que li koy téye doon candidat amagul ci réew mi mooy àtte bu définitif yoon teg ko ko mu nangu ko yoon teg ko ko mu nangu ko. loolu eggaguñu ci niveau boobu kon tey jii danoo nekk ci bataille communication communication mooy gëm gëmloon nit ki ni Macky du bokk waaye Sonko du bokk léegi jeu bi ñu ubbi ko ci ñeneen loolu nag mooy li dangereux parce que boo doon xaaj réew mi ci wàllu politique genn wàll gi yépp nag danoo farak Ousmane Sonko wala ñu safoo ko wala ñu ànd ak moom wala ñu yaakaar ko yaakaar bi nag dunne moo fi gën yaakaar bi nag dunne moo gën yeneen candidat yaakaar xamoo lan la mooy danoo mos parti socialiste mos njabootu libéral bu may wax njabootu libéral ay makeeg yëpp ci laa leen di boole mos ay Idrissa Seck parce que ñoo ñëpp ku fi nekkul président nekk fi premier ministre wala nekk ministre comme ay Khalifa Sall xam ne si système parti socialiste bi dañ cee tax rëpp te 60 ak tey jii ñun dañoo jàpp ne lépp lu ñu teg ñaari système yi jiite woon réew mi la mooy système libéral bi ak socialiste yi naam def nañ ay jéego léegi na nit ki kumpa moo ko sonal nit ki li mu amagul la bëgg mooy benn waay jun naan anti système la waa benn waay la boo xam ne mosul bokk beneen partie bu dul Pastef ñëw indi ay idées yu bees indi ay ngëm-ngëm yu bees jàpp ni liñ fi indi ay atang yi depuis 60 loolu doxul moom daf ñoo bëgg a yóbbu ci leneen mais loolu tax gars yi ne nan ko mos pour xool lan lay saf ndaxte nag fii boo fi falee Idrissa Seck Idrissa Seck xam nañ ko pare boo fi falee Khalifa xam nañ ko ba pare boo fi kare Karim Wade fal nga Wade ma ndaxte mu ngoon ci nguru baayam kon benn système bi la boo fi falee keneen ak keneen képp koo xam ne yaa ngoon ci keppaaru Macky Sall boo ko falee fal nga yi loolu boo gisee Ousmane Sonko di intéressé nit ñi mu am un discours nouveau am loo xam ne xamaguñ ko kumpa mën na am sax gars yi ñoo ko gën mais sunu borom moo defee noonu nit ci kumpa kumpa moo ko sonal léegi nit kooku nag nit ñi am yaakaar ci moom yow nga jàpp ni da nga naan ko pël rek sànni fële doxal li ngay doxal teg fi keneen bëgguñu indil seen mu Gàmbi mooy Yaya Jammeh dem na. ay Ousseynou Dabewe ak ñeneen ak ñeneen ñoo ñëpp écarté na leen ay Khalifa Salah léegi ñu dem indil ñu benn vigile wala benn waaj ji société de gardiennage ne moom mooy président Gambie c'est normal Gambien ko tànn mais bu mun est-ce que Gambien yi bu ibbi ubbi woon jeu bi génnee gars ci kaso bi ñëpp bokk est-ce que waajo dina doon président yàlla moo xam léegi nag ñun syndrome boobu lan bañ bëggut a dund mooy nan ubbi jeu bi jeu bi ibbeeku ñi war a bokk bokk ba ci Ousmane Sonko mi parce que li li garaaw mooy buñ demoon ba fexe ne usmaan Sonko du bokk mais képp ku bëgg a bokk mais di nga mel ne ab baay Fall di nga gal ab sa këll wala képp ku bëgg a falu dem dugg biir kër Ousmane Sonko wala nga taxaw ci bunt ba di fëgg bunt ba naan ko sarax ma ma falu maanaam moom bu demoon ba ne bokkutul moom mu toog. ku bëgg a falu di nga ñëw taxu buñu këram sukk ci ay tànkam ñi di ko xas yëpp loolu tax ma ni képp ku koy bañ nanga ko bañ nànk képp ku koy critiquer na nga ko critiquer nànk képp ku koy contre na ko contre nànk ndax ëllëg li ngeen di ut même moom bu ci bokkul pour ngeen am ko il faut mu jàpp ci foofu la toll moom la xale yi bëgg moom la xale yi safo moom la xale yi jàpp ni moo fi ne kon kook képp ku ne duma dem waaye moom du dem da ngay nax sa bopp kon mbir yi nañ ko jaarale yoon ku waxul dëgg wax safaan mooy bari kàddu këram ci loo xam ne yoon diglewu ko ci koo xam ne danga ne da nga ko condamné ba pare jël jël la résidence surveillée bu ko ko collé ay boroom xam-xam ñu ngi ko koy wax doo xam lan la li nga ko teg loolu aussi moo tax mu xaw a compliqué tey jii nga ne ko demal wuy ji dialogue te nan ngay tëjee nit ba pare naa ko demul wuy ji même bu bëggoon wuy ji fi muy jaar. nga ni ko da nga dafa war a dem procès mais procès bi bu bëggoon a dem fu muy jaar barricade di këram tëj ci tëj ko ci nga képp kuy wax ci réew mi da ngay wax rek te yàlla tax li ñu def ci këram tëj ko nan ko dindi léegi nag li yoon di doxal ak moom yàlla suñu borom rek moom moo xam ak ëllëg ji nga Ousmane Sonko mi bu yàlla ne du jiite senegal bu defoon ay pexeem yëpp du ko jiite waaye bu yàlla ne di koy jiite pexe yu mën a def dina ko jiite Alassane Ouattara mi ñuy wax dem nañ ba liñ aw luñ ko teg teguñu ko Sonko la dee ca Côte d'Ivoire deewul ci réew mi te yàlla bu mu fi dee dem na ba nu génnee ko réew mi xam na son Sonko kenn waxagul ni sénégalais la ñëpp xam na ni ci réew mi la bokk sénégalais la mais kee dem nañ ba créer ivoirité pour jëm ko beddi tey jii la mu bëgg ca Côte d'Ivoire moom min doon wax naan di ivoirien di Alassane Ouattara la mu bëgg ca Côte d'Ivoire mooy am tey jii bu ëllëgu Gbagbo ci loo xam la ne béjjee keneen ak keneen. ba ci Guillaume Soro ñoomin seen ba ci Blé Goudé looloo tax mën naa leen boo leen bañ da bañ nànk boo leen contre doo leen contre nànk parce que ëllëg du añ du reet lu mat a sëdd la te am na ñoo xam ne seen yoon day metti dañuy jéng waaye duñ daanu loolu tam mbiri Ousmane Sonko ñi koy enterré nanu teel te loolu nag bu mu koy wax damay wax ku mel ne Barthélemy Diaz ji nga ku la sut de ko woon njool mi ku la nit maa la mën danga naan ko lu tax Barthélemy ñëpp dañoo jàppoon ni jàmbaar la waaye bis bi ñu fi yëkkatee eh, mbiri Ndiaga juuf ba ñu bari jàpp ni mun na bañ a doon candidat ci ndakaaru moom Barthélemy Dias ñu bari jàpp na mun na bañ a doon candidat ci ndakaaru mais Ousmane Sonko moo jug ñu woo ko mu gunge ko woo ay militant am ñu gañe rapport de force bi ba tey jii bu nekkee meeru Dakar Ousmane Sonko joué na ci rôle bu am solo joué na ci rôle bu am solo tey jii barricade bi ñu teg kër usmaan Sonko bu doon ni kër Barthélemy leen ko def fekk Ousmane Sonko nekk ci mbedd mi am liberté Ousmane Sonko bu nee waa Pastef fi nañ dem dindi barricade bi gëm naa ne balaa ngoon mu dañ tey ji liñ teg Ousmane Sonko nii barricade bi tëj ko këram leader politique buñ ko tegoon fekk Ousmane Sonko libre bëgg ko dem dindi ji. gëm naan mën na ko dindi wala dina met trop kon da leen a gën a doon jàmbaar da leen gën a doon jàmbaar bari na ci ñoo xam ne tey jii ci arène politique bi da je je cite Khalifa Sall Khalifa Sall bi mu génnee kaso ba bi ñuy commencé yow askan wi déggati nga woon ngeen xalifa Sall ci politique Khalifa Sall bu dellu si waatee ci politique mën di wax ñu koy dégg di ko bàyyi xel conférence des leaders bu yeewi la te yeewi askan bi bu ñu koy wax Ousmane sonk moo tax. Khalifa Ababacar Sall parce que Khalifa bi ñu ko tëjee ci kaso ba coowal Adji Sarr ba m 2 di juddu dégganti woon ngeen Khalifa Sall wala ngeen gis ko ci dara wala mu taxaw ci public di wax ñu koy déglu wala muy jox ay dogal Khalifa Sall mi Barthélemy mi di tagg ak di ràccal lu nu mu dugg ci mais Khalifa Sall am na benn jamono Sonko la gën a yaakaar ko Barthélemy parce que dafa bari ñoo xam ne ci géopolitique bi ay Habib Sy Khalifa je peux bu ñëwaatee ci jeu politique bi existé ñu mën a wax ñu déglu leen Sonko moo tax à travers m 2 ak Yewwi Askan Wi kon daf ci am doxalin yoo xam ne ñun xaaruñu ko ci ñoom xaaruñu ko ci ñoom waaye nag Ousmane Sonko moo tooñ boppam mës naa ko wax ci jamono te bi mu koy wax ñu bari ànduñu ci maa ngi ko waxoon ci surtout Cheikh Bara def gis ñu ngi koy nuyu. di ñaan yàlla mu génn mooy dama ne woon yeewi askan wi xa Sonko warut a ànd ak ñoom di dem élection man loolu dama gëmoon ne Pastef mu warul woon nangu di boor ci ginnaaw kenn wala muy dénk kenn dara ci élection man loolu laa gëmoon parce que ñoom bokkuñu lu ñu gëm bokkuñu fu ñu jëm te bokkuñu lu ñu yaakaar ba ci coalition yeewu wàllu ànduma ci woon. tey jii am naa raison ci ñoom parce que dama won woon Ousmane Sonko ñi mu àndal ñëpp gëmuñu ko dañ yaakaar mais gëmuñu ko bis li ñuy ut bis buñ ko amee dañuy wan ginnaaw Ousmane Sonko tey jii li dal Pastef ay nit ñu bari dugg kaso ñu téye leen mais lan moo ko indi ay investitures yu bon ak liste national Yewwi bi ñu dindi te liste national boobu lee ñan lañ ci doon tudd ay Saliou Sarr ay Saliou Sarr yu jege Khalifa Ababacar Sall Modou Lamine Diallo ndiwaat na fi débat bi gars yi gën di weddi mais tey jii fi mbir mujj ak ni ñoom xalifa di doxalee ak Sonko mii mooy wane liste boobu am na lu ci xewal lu ñu waxul ñoom nag xam nan maa ngi fàttaliku bi ñu annulé list bi Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye am na benn post bu ñu defoon ci Facebook mais danoo waxoon wax bu am solo ñu ne yàq ngeen sunu liggéey poste boobu dañ ko dugal te génnewaat ko ba ñu yax ngeen sunu liggéey boobu lan la Ousmane buggoon wax peut-être bëgguloon frustré waa Yewwi ak ay Khalifa ak ñoom seen waa taxawu mais noonu ñu doxale woon moo tax Ousmane Sonko warul woon woon Yewwi waaye tey jii bu doon nii tey ji Pastef bari na ci nekk ci kaso bi ñoom ñëpp tey ji ay député lañ waroon doon parce que Pastef bu demaloon boppam rek ak Ousmane Sonko mii ñoom dinañ am lu mu dee dee cinquante député ci jamono. mais jàpp ni ñoom ak ñi ñu àndal ñoo bokk jikko fekk bokkuñu jikko ñoom ñëpp doonoo sukkoon rek ci barke Ousmane Sonko parce que sukk ci kanamu sëriñ dégg ko say loxo mu lay ñaanal ak nga gëm sëriñ bi du benn yaakaar ñaanu sëriñ bi ak yaakaar sëriñ bi du benn ñoom danoo yaakaaroon ni Ousmane Sonko mën na leen yóbbu fi ñu bëgg parce que dégg nañ député dégg nañu maire mais aussi may na leen ñu mën a teg dara ci loxoy Macky Sall parce que politique boo nee di dialogue ak di waxaale day fekk nga téye ci dara. parce que comme li may faral di wax rek nee naa ñoom ñëpp dafa am jamono Ousmane Sonko ngoom leen bi mu leen tingoomee ñu féete ko kaw foog ni danoo jool mais bi ñu wàccee la nga xam ne ñoom duñ dara te balaa nga ko doon xam élection amoon usman Sonko bokk ñu bokk nga xam ne élection yi fi xawoon ci mar ci législative ak local billaahi ci ngay xam ni ñoom duñ woon dara ci barke Ousmane Sonko nag lañ doon demee mais tey ji trahir nañ ko tey ji war nañ ko waaye ku wër ren ba déwén mu jig la dala ko jinju yow dala ko jinju yow daf ci am ay doxalin yoo xam ne ci wàllu politique ñun dañ ko war a weesu ku ne na nga gëm li nga gëm ku ne na nga gëm sa candidat mais y a des pratiques yoo xam ne man séntu woon naa ci ku ne ci Sénégal ba mu des Khalifa Ababacar Sall parce que li mu dund ak Macky Sall ak fi mu jaar ak Macky Sall tey jii bu mujjee fii y problème ba ci biir yeewu bi ak ñi des ak Ousmane Sonko ñu bari dañoo jàpp ni Ousmane Sonko du bokk rek du question dañ ko gëm de du bokk bu bokkul léegi ñu xool ci Pastef nan la ñuy def ba ñu jàppale leen parce que ku mu jàppale cool itam mooy bu bokkul tamit ku mu jàppalewul doo falu parce que moom la xale yi di déglu moom la ñuy bàyyi xel moom la xale yi di déglu moom la xale yi di bàyyi xel fu mu leen joxoñ foofu la ñuy xool. loolu tax ma naan la ku koy contre na nga ko contre na nga koy bañ na nga ko bañ ndax de mun nga ko soxlawaat ci kanam looloo tax foofu la waa PDS gën a intelligent waa taxaw boo xoolee ni Barthélemy di doxalee ak yenn nitu tal taxaw yi di tontonteeg ñoom Ousmane Sonko ak yooyu ak waa Yewwi c'est pas intelligent tey jii Khalifa Sall même bu demul woon dialogue dem ànd ak kii di Ousmane Sonko moom résultat wu dialogue bi da koy favorable ndaxte fépp foo xam ne. atte nañ fa Karim Wade wala ñu seetal fa Karim Wade da koy yóbbaale géew est-ce xam ne xalifa desoon ci yeewu ak Barthélemy ñoom moo a ju ñoom da koy yóbbaale géew moom bu desoon ci yeewu tey mën na bénéficier wu sax bu soo ko ñàkkee sax moom mun na ko jariñoo mais naa bokk rek nu ma bokkee baax na daf ci am loo xam ne xel ngay jiital balaa ngay jiital sa xol te Khalifa Sall boo déglu analyse yëpp ñëpp amul képp boo xoolee même ñi def météo politique doo gis ku ko def président kon tey jii man dama gëm lenn mooy moom dafa bokk ci coow li xamul lu ko waral mais Macky ak libéro yi pour man ñoom ñoo nekk ci seen benn logique parce que Macky moom bu señoon ab libéral moom moo koy wutu soit ci partem soit ay allié am wala soit keneen ak keneen mais comme li may wax sànq rek analyser ci Macky Sall yombul parce que fii la xëy indil na fi benn Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop depuis quelque temps fu Macky toog mooy nekk à droite wala fi lu ñuy wax sa bras droit sa loxo ndeyjoor mooy ki nga wóolu mooy président assemblée institution bi fi ne moo ko jiitee à part Macky tey bu noonu Macky yi mara de taali Amadou Mame Diop moo nekk président jege loolu famille Macky Sall. depuis quelque temps déggoo Mansour Faye mais cellug mag du noppeem looloo tax Aly Ngouille ak Amadou Ba mais pour man ay Aly Ngouille ak Ba yëpp fi nelawee mooy jamono bi leen dàqee ci gouvernement bi danoo dem tëdd di nalaw foofu dañoo waroon politique mooy dugg ci àll bi ji nga ñaari at yooyu ñu nekkul ministre dañ ko waroon ñafe ji ji nga buñ ko ñafe woon tey jii dañ koy jariñoo mais tey jii même ku leen tànnoon est-ce que am nañu temps pour dem uti loolu tax li war a xew ëllëg yàlla rek moo xam mais lu compliqué la ci politique bu Sénégal pour wax la ni rek probabilité yi amat li jëm ci mbiri élection yi jëm lu compliqué la mais waa Pastef aussi war a moytu yenn erreurs yi yenn erreurs yi parce que si seen erreur aussi ci la gars yi di jafandu mais di leen daaneel tey ji Macky Sall même bu demoon ba jàppale Ousmane mais Ousmane ko problème bi mu am mooy système bi la amal problème parce que ci biir xeexam man dama gis ni Ousmane Sonko da ci xeex xeex yoo xam ne jaru ko woon jaru ko woon mooy fu mu génnee attaqué justice bi fu mu génnee attaqué takk der yi jaru ko woon parce que tey jii même bu Macky dee dem mais ñooñu dañ naan waa yi li ñu dund ak moom ci opposition mais waaj bu jotee réew mi day jël yar wi duma ñu kon ñun dinañ def ba lépp du bokk. dinañ def ba lépp moom du bokk looloo tax Ousmane ko front yi mu ibbi moo bari loolu aussi tam ci la front yi mu ibbi moo bari te pour man benn front rek la waroon na ibbi rek am ci ndam mooy front contre le président Macky te boobu am na ci ndam parce que tey jii le président Macky Sall bu mënul nekk candidat wala mu dem ba tey jii mu mën a rocceeku ne bëgg ko nekk candidat du question bëggu ko de. parce que bu ko bëggul woon dina ko wax bu yàgg wala mu waajal kenn mais fii ci fii ci partam waajalul kenn gars ci ay jafe-jafe la nekk ngir tànn kan moo koy wutu léegi nag moom dafa jàpp ne bu demee yóbbaale Ousmane Sonko ku mën a falu dina gën a nooy ci moom loolu nag moo indi tey ji le président de la république mi ngi dem mais rapport de force bi la Ousmane Sonko gagné ci mbedd mi mars 2021 mu ne du amaat ñu ñëw juin mu amaat 2023 mais yi xam na ni amul parti bu ko xeexal mais amul coalition bu ko xeexal parce que combat yi mu fi sumb yëpp nag da ko perte mais élection yi fi mujj yëpp ci local ak législative imaginel ñu dem ci liste yeewi askan wi liste boo xam ne amul liste titulaire suppléants yi ñoo dem Ousmane Sonko ñoo campagne battre leen jamono yóbbu leen cohabitation mais loolu daa am lu muy jur kon tey jii euh, débat contre le troisième mandat Ousmane Sonko bu doon ni ñaari round la round bu njëkk bi da ko gagné Macky Sall. Macky Sall nag beneen round bi moom dafa jàpp ni dafa war a fexe ba Ousmane ko du bokk maanaam fexe nga ba du ma bokk mais man dinaa def samay pexe ba doo bokk léegi nag pexe yooyu lan la mooy da ngay dem ci kaso bi wala dañ lay àtte ci wàllug yoon wala dañuy bàyyi dem ba conseil constitutionnel mun la bokkoo loolu aussi ay mbir la kon jamono yi waa Pastef pour man xel lan war a demee mais waruñu demee xol parce que nag depuis des années ñi ngi xeex mais xeexu troisième mandat jeex na léegi xeexu Sonko bokk mais xeex boobu nan la war a amee parce que Macky nekkul candidat nee na de mais ba léegi mooy président ba léegi mooy président léegi imaginel bis ñëw ñu ne dañuy jëli Ousmane Sonko loolu lan la mën a jur ci réew mi lan la mën a jur ci réew mi imaginer bis ñëw ñu ne Ousmane Sonko di nekk candidat lan la mën a jur ci réew mi mais est-ce que bëgguñu ñu yóbbu ci kaaw tey jii bu ndewoon ba egg ci kaaw réew mi kenn mënatu ko yor mais Macky Sall sañ na ni wala waa bitim réew léegi Sénégal nan ko waxtaanee ñu pousse datu élection yi mën na ne Macky Sall kon na toog léegi ñu ne nanu def euh, union nationale daje jéem a recoller les morceaux réew mi àndaat mais loolu day jël temps. bu loolu amee nag ñu ne léegi ñëppay bokk bu loolu amee ñu ne ñëppay bokk bu boobaa na lay demee loolu tax loolu lu jar a sóor la kon tey jii Pastef ak président Macky Sall jeu de yooyu la ne dañuy yoote dañuy yoote te yoote boobu ñuy yoote léegi affaire intelligence la affaire xel xam nga Macky Sall bu la ci kenn na Macky ku muus la ku am xel la. te li mu bëgg xam na ko te fi mu jëm xam na ko parce que man mënu ma comprendre Macky sàll xëy ne duma ma bi mu xëyee ne duma ma ñu jàpp ay nit pour trouble à l'ordre public wala manifestation non autorisée naam li mu wax kenn àndu ci mooy euh, biram Souleye Diop wax na jéggalu baalu mais teewul mi ngoon ci garde à président Macky 48 heures avant mii naan bokk ma mu woo ay meeram na leen defaru leen ut leen seen kaaraange sàmm seen kaaraange bopp mais bu dee nit ki dafa nekk ci logique gu dem dem yoonam est-ce que front yooyu moom te dina ko ibbi pour jëm ci xare parce que aussi am na ci loo xam ne man loolu xaw na ma jaaxal ci président Macky Sall te loolu c'est un problème jamono jooju bu doon ni danoo xëy ñu ne bàyyi nañ Bassirou Diomaye Faye wala commencé nañ libérer les détenus politiques wala ñu def ay délit d'opinion bàyyi nañ benn Cheikh Bara Ndiaye bàyyi nañ diw bàyyi nañ diw ba nga sentir ne sàll mi ngi bàyyi dara mais tey jii la dëgëral bi ëpp ndaxte bi Macky waxee ba suba sa lañ jël décision de publier ko tribunal léegi Macky day dem mais dafa leen bëgg wan ne ba léegi may président loolu tax ñiy xel ñaar ak seen xel di tey ci élection vingt cinq février atum 2024 xel mën na ci tey kenn xamul lan mooy xew ak fan la ñu jëm mais pour man Macky bu nee bokkatul dafa war a xëy di nooyal ñi ci kaso bi mu leen di bàyyi Ousmane Sonko ñu dindi barricade bi waa Casamance yi am jafe-jafe dama dikk ñu gën leen ko yombalal bato bi commencé daw maanaam mu am benn dégel muy dëgëral bi pour quoi dëgëral bi te ñi ko jege ñëpp. mooy Macky du dem mais Sonko warut a dem te amul décision justice bu taxaw mu ne Sonko warut a dem léegi nag foofu laay daanele ci Idrissa Seck nga xam ne Idrissa Seck daf ne Sonko xale la mën na xaar ba deux mille vingt neuf mais bu ne Idriss ndax xam nga day mi Idi moo neex maanaam day xaar ba deux mille vingt neuf mais Idi bi ko Ablaye Wade di def neexu ba neexul mais Ablaye Wade moo ëppoon vision Idrissa Seck nag boo gisee Ablaye Wade ànd ak moom ba si yàgg jël ko sànni ko fële. xam na ni Idriss du dem quoi Idriss Seck du dem yow bi bi lay def directeur de campagne en 88 yow amoo 30 ans Abdoulaye Wade wóolu la yow amoo 30 ans sa Seck daa koo jàng Sonko ëppoo ko ay diplôme ndax ab auditeur nga mais suñu borom may na la xel balaa ngay am 30 ans nekk nga directeur campagne Wade te boobu Wade ak Diouf metti na trop 88 lu taroon la ci Sénégal nga ñëw gérer ko avec brio. ci la la ñëpp nawee ba 2000 nga créé marche bleue dem ba ne maay actionnaire majoritaire PD Abdoulaye Wade maa ko fal ñu bari jàpp ni ab jeune nga Idrissa mën na egg fu ne ci politique te loolu lépp bi nga koy def yow xale nga tey ji yow Idrissa sekk danoo jàpp ni xale yi ci géew politique bi tey jii bari na ci ñu ci naw ñu ci mel ne Abdourahmane Diouf wala ku ci mel ne kii di Déthié ak ñeneen ak ñeneen ci sa keppaar la nu màggee yàlla leen formé te ñooñu ñunu naw lan te wala fi dañ ne wax ma ku do ki nga doon moo kan wax ma ki nga doon ma wax la ki la yar te tey jii ñoo ñëpp sa keppaar lan màggee ñu naw leen ci wàllu politique kon loolu yow dan la koy nawee te ñoo ñëpp ay xale lan nekk ci géeg politique bi yow bi lay tànn xale nga mais nga tànn ay xale yoo xam ne kenn xeebu leen ci politique yow sa Seck tey jii yow nga bëgg a jàpp ni Ousmane Sonko ab xale la te yow bi lay tànn ab xale nga walla yow danga xam lu kenn xamul woon wala da nga mën lu kenn mënul woon kon Abdoulaye Wade mi la tànnoon moins de trente ans mu def la directeur de campagne Abdoulaye Wade moo la vision tey jii Emmanuel Macron mooy président France boo demee Ukraine ka jàkkaarloog kii di euh, Poutine tëkk ticc du mag ab ndaw la. yow mi fi waxoon ne bu ma tollee at bii duma ma nekkati candidat pour man tey ji danga nga waroon a gunge ndaw ñi ñu falu bu boobaa ñu tey ji meeru dakaar bii ñuy wax ab xale ko jiite yow gëm xale yow Idrissa Seck moo tax ñu dénk la maire Thiès ak conseil départemental ba nga tey la ko ba Diatara bi ngay jël Diatara xale bu ndaw la man dama gëmoon ni yow danga gëm ndaw mais ab mais benn haine ak benn bañu Ousmane Sonko day tax ñu dugg ci erreur yoo xam ne ñii tey bari na ci ñoo xam ne xeeb na leen mi Khalifa di Idi di keneen ak keneen ñoom ñëpp Ousmane Sonko daa am lu mu leen yàqal ci politique maanaam danoo bañ Ousmane Sonko te bañuwuñ ko sago maanaam tout sauf Ousmane Sonko ku mën a ñëw baax na fekk yéen a ngi gëm loolu da ngeen di gën a soof askan wi mais da ngeen di gën di perte ci wàllu politique mais leen di gën di bañ parce que boo leen di wax ci moom doo leen wax xam-xam boo leen wax ci moom doo leen wax xel il c'est am xel la. ku mën a analyser la ku xam réew mi la mais am na noo xam ne boo ko dee waxee ci Ousmane Sonko te yow à 29 ans Abdoulaye Wade tànnoon la pour nga doon directeur de campagne ci atum 1988 tey nga toog fii ne Ousmane Sonko inspecteur des impôts ak nu mu toll ci réew mi xale la na xaar lu tax Abdoulaye Wade à 29 ans wala moins de 30 ans mu tànn la kon Abdoulaye Wade moo la ëppoon vision ah Idrissa Seck ñu nag euh, duñu ay mag mais fàtte wu ni histoire politique Sénégal am na lu fi jaar. te ñi fi mës a nekk ci àddina bi dunoo gëm ndaw Senghor bi muy tànn Abdou Diouf ndaw la yow bi la waat di tànn ndaw la kon mi ngi noonu El Hadj Modou mi ngi yëglu mu doonoon rek ay tënk ci actualité bi di ñaanal ñëpp jàmm mais aussi tamit di baalu àq ñëpp bu dee tudd nañ fi koo xam ne ni ko tuddee neexu ko ñu ngi baalu àq ñëpp di ñaanal Cheikh Bara Ndiaye ñu teggi ko loxo mu ñibbi ci këram ak njabootam parce que pour man mag Macky foofu la war a toll li des mooy mu yolomal bàyyi gaay ñu ñibbi réew mi dal réew mi neex ñëpp nekk ci jàmm ñu bu ñu demee élection ñi war a bokk ñëpp bokk ci jàmm ak salaam ki suñu borom tànn sénégal yi tànn ko mu jiite Sénégal Omar Bun Khattab Gueye moo nekkoon ci kàddu gi El Hadji Modou Diouf nekkoon ci technique bi di gërëm Modou nag di nga ma may de Modou baal ma <laughs> Modou tey daa am ku ma sant nag mooy euh, Cheikh Thiam ma nga nekk ci aru guy gi Kër Massar. Cheikh Thiam di fans Walfadjri euh, képp koo xam ne rek bëgg nga mu ñawal la ñaw bu mel ni wala bu ko dàq di nga daf maa ñawul te jëlalu ma mesure te daa yem ci man plek ci tabaski bi la ma ko joxoon tey jii ma ni nag xaaral ma xëyee ko di ko gërëm bu baax ci 70 831 02 04 wéy leen di suivre Solution Info TV mbokk yi jërë ngeen jëf.